internet yi nga xam ne yéenay seetaan N-Chaîne TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko gaaw jot mbokk publication bi mooy li nga xam ne moom la Papito Kara mujjee publié ci page Facebook am muy euh, euh, le 21 octobre bi nga xamante ne moom la ñu weesu mu jay xam leen daal métti na lool nga doon ndaw sim réew yaakaar yu bari euh, maanaam ñu bari yaakaar si yow nga am jom mat sëkk. Euh, teg si ba noppi euh, te mënoo sottal dara loolu daal yaa jàpp nañ loolu jafe-jafe la waaw ba tax na ndaw yi nga xamante ni ñi ngi soobu ci géej gi yëpp lu mel nii rek moo tax ñuy dem donte sax xam na ni sans gagne sans perte la sa bakkan mën na cee des wala leneen mën na la cee fekk en tant mën nga àgg loolu yëpp am na mais bu ngeen gisee eh, ndaw yi di jël li nga xamante ni moo di ndox mi rek ñàkk yaakaar gun ñàkk yaakaar seenum réew moo waral ñuy def lii amaana moom mi nga xam ne moom mooy publication bi sax lu mel nii eh, moo ko dar ba ko jeexale nag mooy eh, ndax loolu yokkul seen jafe-jafe wàññi bu yokkul seen jafe-jafe daal du ko wàññi xam leen daal Sénégal du réew ndeysaan publication bi la def ci page Facebook mooy lu dawee mooy lu daw yaram nga xam ne maanaam ci détermination bii la amoon ba waral mu dugg ci géej gi comme ni mu ko waxee rek euh, jafe-jafe yi ni dund rek loolu moo waral ñu jël li nga xam ne moo ndox mi ndax da ngay nekk ci famille soit nga nga mag ci wala soit euh, xam nga ñëpp yaakaar ci yow mënoo di leen xooli bët moo waral ngay dugg ci loo xamante ni daal du nekkul sax du la gën a mais day nekk lu mënta ñàkk comme nañ koy waxee. Euh, Papito Kara ngeen gis ko noonu mu mu mu mu maree woon ay kii ci ginnaaw ay mois ci ginnaaw yàggul dara ak jafe-jafe yi nga xamante ni daloon na ko ci wàllum yoon mu am laa doon ak yoon euh, moom nag mu wëy ci borom yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal